sëriñ bi ñu ngi am mbégte mu rëy tew fii ci sa kanam di yëddi yëkkati ay kàddu yoo xam ne kàddu yi du lenn lu dul rek di la sant di la gërëm wax naa ko fee léegi naa leen di téye nga ma yiir nga ma aar nga ma jàppale nga ma te wax naa fa tam ne yoonu mu ku la gën a xam Sëñ Tuubaa ko ci fi mu nii ndax lépp lu Cheikh Abal xam xamal na ko Cheikh Abal Sëñ Tuubaa ko yor te heure boo waxee murid xam ne ko xam Sëñ Tuubaa mi ngi nii di xam histoire ngay sama kilifa te du ma dox ci lenn lu dul kilifteef tey jii dinaa wax loo xam ne mosuma ko wax ci mbir mii ma nekk nii di xamal euh, si la may ne ko man bëgguma dara du député du leneen wutuma dara sàkkuma dara dama toog di liggéeyal Serigne Touba ñëpp ràññee ma ci liggéeyal Serigne Touba président ràññee loola gis ko jàpp ne am na loo xam ne war naa koo mën a taxaw dëkk bi ci wàll gi nga xam ne ñoom ci lañu féete mu woo ma téléphone booba onze heures passé na ne ma dama bëgg nga jàppale ma ndax am naa yéene ci dëkk bi am naa yenn ci sëriñ bi te soo ma jàppalee day li ma bëgg suñu borom mën na ma ko defal ma sant ko gërëm ko ni ko li nga wax de man naa ko waaye nag su ma samay kilifa yabalu dey loolu du man a nekk ñu toogaat samay mbokk yu baree bari toog mi ngi def journée culturelle Sëñ Cheikh Mbacké bi ñu wax la ñuy wax ba noppi la fa nekk man na fukki nit Sëñ Abdourahmane moo ji délégation ba mu ne Cheikh Abdou mii dama bëgg de mu ñëw jàppale ma jiital ma sama bis ca Touba ba waxee ba noppi ku ne wax ci lu rafet moo nekk monsieur le président la ma la wax nekk daal lay waxal ginnaaw ma la sant gërëm ndax li nga def ci yoonu murit def ko ci réew mi def ko ci suñ kër gii Daaru Xudoos na kër Sëriñ Cheikh Mbacké ndax ku ne nomee na la fa war naa tax kenn ku ne ci ñun sacrifice wu jóg laxasaayu jàppale la waaye nag man dama am ay kilifa su ma samay kilifa jàppale ba dikk ci la ci yónnee ki sëñ ba Cheikh Sidi Maxtaar sëriñ bi yónnee ki sëñ Axma wax ko ko yónnee ki sëñ Sidi Abdoulaye wax ko ko maanaam sëñ moon max fa su ñëw ci moom mii ñoom ñëpp ñu dëppoo ci ma soog dugg ci lii ma te tey jii moom mii toog su ne woon bàyyi lii fii laa koy bàyyee suba du ma xëy fenn du mat sax du ma sax demaat kese bi kenn ku ne ñoom su ne woon génnal ci lii fii laa koy bàyyee amul benn condition boo xam ne wax naa ko ak président la wala mu posé ko ko ndax sequñu loola benn condition bi ma ko posé moo di naa am sama ndigalu kilifa mu yónnee ñoom tàggu leen bàyyi dañ moo tax mu dugg ci lii man du ma def lenn lu mu ndigal ci ndigal lay dox te waxtu ñoom bàyyee ma bàyyi. bii wax naa ko nee na mbërki bii kër Modou Mbacké si ma ne leen président yéene na sëñ baat ndax yéene sëriñ baat weesuwut jël doomi sëriñ bi koo xam ne bu ko sëriñ bi ne bàyyil mu bàyyi koo xam ne moom bu ko digalee sëriñ bi digal la ko sëriñ bi digal lay def mu jël kooka tabb ko ndax su ma sëriñ bi wooyee moom mooma ci sëriñ bi lay dem kon su ma jëlee tabb ma bëggut a xañ sëriñ baatam ndax mën naa jël keneen ku dul man koo xam ne kenn du ko mënal dara teg ko fi muy dox nu ko neex te loolu man sama xel xalaatu lii laa bëggoon a seereen mbooloo mépp ñu dégg ko ci kanam àdduna nga xam ne sëñ man maa ngi nii di taalibe di seet doom fa su ma yéene wéy ci lenn ndigal di la xamal ne aw ma sa pay te taxaw bi tamlu tey maa ngi fàttali keroog bi soxna si nelawee maa nga dikkee yaa fa mujj nit ñëpp yewi ko man maa fa toog. nopp si yàlla Cheikhouna Sëñ Mahfous ak Soxna Bali nga tëj ñu ci néeg ba am wax yooyu wax jekk bay dem daal ne bu leen kenn xamal dara lépp lu ngeen def def leen ko seen biir bis bisu keroog boobu la ñu décidé ma bu soxna may man naa ne man mii maa ko miraas sëñ bi mënu ko wax kon yàgg ngaa yër kër soxna may yàgg ñoo taxaw tey taxul te loolu jëmmi Cheikh Awa nga xool wax naa ko fii nee naa leen man kër gii laa gën a miin ci fenn ndax bi may ngone magal tuba fi la da tok daaw ma dem fenn daru ma naan fa laa dëkkoon kon omu lu fi omu kudu Cheikh Awa Balla amu ku du Maam Cerno Ibrahima di ci am mbégte mu re nek fu nek tam taxon na fu waxtu nak waxat fi ne man day mam Cerno modi sama serigne moy sama model ci murit te loolu li ma mu taxut ay jikko momu day ni doxali momu day ak talibi momu day l'islam momu day ma japp ma japp ko kon sëñ mi ñi ngi lay delloo deng suñu bop di feddali li nga xamante ne mooy lu seq mu di wayjur ak doom mu di ab sëriñ ak talibi di la xamale ne lenn lu dut liggéeyal sëriñ Tuubaa jaarale ko ci yéen taxumaa jóg yitteelu ndax sëriñ Tuubaa defal na ma lu ne man na maa tëdd def dara nekk ci jàmm ñàkk mu dara ci àdduna waaye nag daa am loo xam dañ ko war defal sëriñ ndax man man yoon ab tool laa ko jàppewuma ko loo xamante ne bii da ngay tëdd ñu ñu ñu di la jox ngay consommer te doo produire te fii laa man a féete taalibe yi kon su ma demee ba am occasion féete fi taalibe yi dinaa ko def ba kër nga naa ma téel sa loxo du ci seet ma sàmb du ma ci seet ma demb du ma ci xaw dara ndax nit bu gëmee yàlla lu muy ragal amul ci àdduna ndax suñu borom moom la muy dogal dogal na ko pare moom nag moo yor bi te lépp lu mu dogal rek man neex na ma wasalaamaaleykum ba ba Touba Ruuf mom Seigne Modou Mahfous la daldi wo Seigne Modou Ablaye mom Seigne maam Thierno ni Cheikh Abdou Soxna Bali dafa ñëw li nga xamni nak and na ko ak nijaayam fekk sama may nijaayam di magi Seigne Mahfous na ngeen ko ci jàppale yéen yaak sey rak ak sey mag ak talibé képp kuma ma ak képp kuy jëfé ndigal ak képp ku dib talibé sëriñ maam Thierno néna na ñun ñëpp nañu andando jàppale Cheikh Abdou muy guddi muy bëccëg ci ba li mu bëgg mu am ko ndax nee na Cheikh Abdou jarbaatam la sët la ci kër gi ca musti jóg ci ndigal ca fonk na mbokk yëpp fonk na taalibe yi ca nee na xool na ko biir ak bëtti waaye xam na ne sëriñ Serigne rekk a ko ñor ca moom nee na képp kuy liggéeyal sëriñ Touba mu xool la ba xam ni loolu rek a nekk ci yow moom fas yéene na laa jàppale kon nag sëriñ bi nee na. képp kuy doom kuy taalibe kuy xarit kuy wëllëre ak ku mu mën a doon ñun ñëpp nanu àndandoo taxaw fi nu war a taxaw nekk ci ginnaaw Cheikh Abdou moom soxna Bali jàppale ko ba lii nga xam ni borom réew mi tànn na ko ngir xool na borom réew mi bëgg naa liggéeyal Serigne Touba te fu lu bari jaareel na ko fu bari waaye na mu ko bëgg a liggéeyal Serigne Touba demewu ni mu xool sëñ Cheikh Abdou nag ba doyloo ko ba xam ni kii liggéeyal maamam Serigne Touba rek ko ño mu jo eh, def joxal ko teraanga ji sëriñ maam Thierno jox na nu ndigal nun ñëpp góor jigéen mag ndaw taalibe xarit wëllëri ak ku mu mën a doon sëñ bi jox na nu ndigal nu jàppale Cheikh abdu moom soxna Bali. nee na ndigal loolu nag yemul ci quartier bii nu nekk na ndigal loolu nag yemul ci dëkk bii nu nekk nee na ci ndigal loolu jàll na ci département yi bépp ak yi bépp. ak fépp nag fub taalibeem nekk ci wéy ci ndigal sëriñ ma am cerno digal na la nu jàppale Cheikh Abdou moom soxna baali kon ci kaw nag ndigalul sëriñ Sidi Muxtaar xalifa général di Murit nee na nag moom bu sampoon keneen tamit mu jàppale ko nee na kon nag bu sampee doomam mu war sawar nee na nag loolu mooy ndigal li fu waay dem na ko yóbbaale. li tubaab yi wax confirmation nee na loolu mooy jataayam bii nee na naru a yendu sax waaye looloo tax mu nekk la fi ba nga ñëw Mbàkke yàlla na fi yàgg Serigne Cheikh Abdou na sa xel dal yàlla na am ndam ca da nga koy am am nga ko ba nopp sëñ maam na ko ànd ak moom loo dugg daan ca yàlla na nga fi yàgg Mbàkke sunu xol sedd na sunum xel dal na.